ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info. alors ñuy kon ne waxtaan bi ndax xam na ñu temps bi taxu ko bari donc li ñuy ñëw euh, dugg ci làmb ji ndax ñu bari sénégalais yu bari ñu ngi la découvrir à travers émission yi nga doon faral di def di wax ci làmb ji ñu grand public yëpp ñu ngi la xamee presque si loolu donc làmb ki nga xamante ni mooy Bombardier ak Balla Gaye daanaka le premier janvier bii la donc làmb jooju ban gis-gis nga ci keroog waxoon naa ko sa mbokk yi waa 221 people xam nga tey boo xoolee Bombardier dafa jekkoon sa waay Balla Gaye ci waaye bu ñu xoolee ci combat rapproché xeex yéen xam ngeen ne Balla dafa am saay-saay bu ci moom mën na xeex léegi combat bii di ñëw nag Balla Gaye dafa am lu ñu def ci moom si wàllu mystique bu teey dal affronté waa ji xeex ak moom jàpp ko daan ko comme lu ñu def Yékini combat bu ñu ko seetee ñu noonu lay tëddee. Balla Gaye dafay ñëw imposé ko wan ne ko maanaam dak xeex te buñ xeexee mu duma bombardier te da koy daan kooku waxoon naa ko bii passé te du ma si reculer waat. Balla Gaye dina dun da koy duma laa la wax. ba pare daan ko. combat dina durer wala ñaati minute ñaat seconde. combat bi maanaam du yàgg parce que suñ doomi soo Casamance ñu xam nañ ko gannaaw bu ñu paree si moom lu ñuy def préparation mystique lépp bañ def lu ñuy def si moom ba samp ko ba pare. def lu ñuy def si moom jox ko ay jotam jox ko ay gàllaajam jox ko léppam ba mu jàkkaarloo ba arbitre sifflé mu dajeex maanaam bombardier ñoom ñaar fas à fas man óolu naa Balla Gaye ci bi terrain bi te duñ mystiquement pare nañ yàgg na bés bi la ñuy xaar incha allah. Modou Lo Balla euh, Modou Lo kii euh, ki nga xamante ni mooy Ama Baldé gis nga li nga xamante ni mooy euh, signature contrat bi coow lu si jub ak yooyu ñu naan làmb ji dina am ak du am dèjà balaa ñuy dugg si làmb ji làmb ji est ce jàpp nga ne dina am donte jàpp nañ dat ba pare. làmb bi dana am ta waxoon naa ci du ma ci waxaat dana am waxoon naa ci duma du ma ci waxaat. naa ko du ma si jaaraat. mais dañu may exclusivité boobu. du ma si joxaat du ma si ma xas ba wax rek génn na. Ama Baldé nga waxoon waxoon naa ko dama si jàllaat bu ngeen toppee internet bi kat jaax na dama si jaaraat nag bare hmm. naa si. mais xëy na bëgg na jege di nga ci wax. wax naa ci benn yoon te loolu la ñuy xaar te kenn du déggaat ma wax ci ba li ma wax noonu maanaam am day xam wala du xam loolu la ñuy di xaar waaye Koungheul yaakaar naa wax na ko si ñetti émission dem naa ba Maroc sax wax ci lu war a am voilà. alors euh, fi ñuy fi ñuy daaneel la waxtaan bi mooy wàllu musique. am na say naataango yu ci wax surtout coow lu ju wàllu balago seek ñi naan Sidi Diop mu xaw am ay tuuti jàppante yenn maaraay wala yenn sëriñ sax di ci wax loolu noo gisee détails yi am ci musique bi waaw xam nga man tey damay contre maanaam koo xam ne danga nga ne doomi daara nga da jaar si daara mokal alquran mokal lépp loo xam ne téere la xam-xam la boo xam ne daf lay jëriñ sa diine yàlla dénk la xam-xam nga jàng asraar dem tarbiya nekk aarif billaahi ba yàlla dimbale nga am garaatu yàlla muy nangu du dëgg ay journaliste ñoo di la tiimale ngay wax si ñoo xam ne maanaam ay wàllu musique loolu képp ku koy def doo sëriñ ñu fi ne maanaam di oote woo garaatu sëriñ di toog di wax si ay musicien du ñu ay sëriñ xam nga ay lan lañ ah maanaam ay tappalekat lañ domaine buñ si oote woo ñoom maîtriser ñu ko te nag maa ngi xaar nag koo xam ne lu ma yow da koy weddi mu ñëw ñu toog man moom ñu boole ñu plateau télévision ma dëggal na leen maanaam ci lu mu du dara si ay toppale la. sëñ Moustapha Dramé moom jotoon nañ ko dégg muy wax tuuti si mbiru waale ak yooyu yow da nga jàpp ne daal kuy wax si misi yi daal. xam nga kooku newoon naa leen dafay toppale. sëñ Moustapha que mokkalul dafa non dafay oote woon ne moom maanaam taalibe tijaan la. te Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif radiallahu anhu dafa wax maanaam sama tariqa bi ñoo xam ne maanaam dañoo takku si man nekk maanaam samay dagget di màcc suma tàngal force da nga nàmp maanaam ay ni rahmati rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqiqatil Moustapha Dramé nee naa la ngeen dem ngeen tariloo ko jawharatul kamal mokkalu ko mooy li ma tijjee sànq émission bi ñetti salaatu yaa ngi dégg dégg naa ko ci xam-xamam bu gàtt mu ne juróom-ñaari martaba bu ñu jawaratul kamal amul juróom-ñaari martaba ëpp na loolu am na fukki martaba ak juróom-ñaar moom la yore yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi bi ngeen di roy moom la xare parce que Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu moo bindi jawharatul kamal nuun ya nii lay jeexee te moom dafay oote woon ne maam na ma ay yàllay kase yooyu moom yàgg naa ko wax nañ ñu boole invitation télévision moo xam 2STV wala TFM. wala Dakar. wala sax ñu invité ñu dagaan bu dee moom dafa oote ne moom dafa am xam-xam nee na moom naa ne arif billahi la xam na yàlla toogee man si boppam man dinaa ko laaj ci yàlla loo xam ne xamut ko boobaa nag daa ko loo sénégalais leen ki dafa wax ba neex làmmiñ ba ngeen gëm ko waaye li mu muy xoote woo maanaam newut ci moom du xam dara Moustapha Dramé Moustapha mënta wax xam kam bu weer boo xam ne man mun na maa jëriñ diglu naa ko ram mi may attaqué di wax lu nekk naan ay kunkande fétiche bu mu yore wérut dañ may déplacé fii ba ay Bénin te foofu la fétiche bekk baax Cameroun Niger Mauritanie Gambie yaa ngi dégg gaana Accra commencé Moustapha Dramé Dubaay bii la tukki fa la yem te man Dubaay ba ma fay dem moom newut sëriñ yaa ngi dégg kon boog mooy li ma leen conseillé bu ñu bëggee xam-xam nañ dem jàngiwaat dañu bàyyi laay alxuraan ñuy yàq waaw dama war a dem Mauritanie dafa am client yu bëri may xaar yoo xam ne ay borom xam-xam lañu ñu ngi may xaar consulat Mauritanie mi ma may xaar yaa ngi dégg bu baax léegi nag dafa am ay secret yoo xam ne si ma demee dama ko war a baaxee Mauritanie yi waaw xam naa dinaa ko def léegi léegi incha allah si kàttanu yàlla balaa maa dem du dëgg walaa baax na léegi nag bu ngeen mënee xaar ma dugg def karaama yi ñëw wal leen balaa ñu yeewee ko waaw pourquoi pas ñu xaar ko am am nañ am nañ patience boobu xaar ñu xaar ko mu dem ñëw euh, wan ñu karaama yi nga xamante ni euh, wax na ko. C'est un calpé qui produit de l'argent. Voilà, vous avez bien vu. Donc on va demander ça aux esprits. J'ai vu beaucoup de vos mara qui sont i si sont dit que mën nañoo def ay karaama am na ay jinne gis naa fi ay sëriñ yi ay faux sëriñ yi oote woon dañoo am jinne ñii naan dañoo am ay fétiche gis naa fi senegal ñoo xam ne dañuy xoote woo di forcer xam-xam te amuñ xam-xam waaye alhamdulilahi rabbil alamin yéen waa Dakar Net ba ngeen ñëwee si kër gi gis ngeen ne fii këru jinne la nest te tey dañoo fas yéene maanaam pour wan leen loo xam ne bi ngeen juddoo ba leen mosu ko gis am na ñuy werante naan am naa jinne wala amuma jinne boo xamee jinne kañ doo laaj sa jinne da ko war a jox te ko war a def n'est-ce pas man sama jinne damaa bëgg ngeen génneel ma 500 euros loolu laa bëgg waaw sama jinne moom. 500 euros laa bëgg mu génneel ma ko buñ paree ma delloowaat leen la ko delloo ko jinne yi wala Oh le pouvoir de la maîtresse, Hercule les vrais dents, reine de la déesse. J'interpelle les grands esprits bénéfiques de l'univers, qu'ils transmettent leur pouvoir sur mon trône. Dans le seul but vous d'exercer ma demande en ce là Maintenant et jamais ainsi soit-il, je t'envoie que, oh, le fin, par l'intermédiaire de l'Egoi, avec la puissante influence de ta pour obtenir le succès de tous les aspects de la vie de cette personne et a surmonter tous les embarras qui surviennent sur son chemin. toutes les mauvaises influences, les pensées négatives et les mauvais œils. Ainsi soit-il. Ô goût de valeureux combattants, force du mal et du bien, je vous appelle, venez pour délivrer nos corps, notre esprit de tout présent indésirable Gardez-nous près de vous et protégez-nous. Experpez-nous de notre environnement. Toute trace du mal, toute signature maléfique et toutes influences indésirables. Priez pour nous les saints du ciel afin qu'ils purifient par notre prière. Ainsi soit-il. Ô Goufférail, celui qui cache et détruit, anéantit la sorcellerie. Je voudrais que tu fêtes cet pouvoir magique que je t'ai demandé. Il faut faire ça immédiatement. c'est obligatoire. Voilà, léegi dama gis ne maanaam dafa am ñoo xam ne dañoo am ay jinne cinq mille francs CFA léegi nag ñuy oote woo ne dañoo am ay jinne ah waay waay bu ñu ragal ne ñëw toog ak man wala sax ñu ñëw jàng ma jàngal la yow xam nga ne ma rëyut maa laaj du dëgg kii xam naa dama la koy may ko yóbbal mais jindee danañ la faj de danañ la door de kalfi bi jindee danañ la faj daa laaj <laughs> waaw kon kon léegi i rabbil alamin ñu tëj ñu ñaan leen yàlla yàlla na yàlla aar leen sàmm leen saafaral leen sutural leen fas seenaaju musal leen si pexeem noonu musal leen si balaay musal leen si yàqatas ku yàq képp ku leen defal lu bon yàlla ko fekkee si barke bi salaay salaam yaa ngi dégg nekk ngeen ay nit ñoo xam ne nag ay borom xam-xam ngeen parce que borom xam-xam mooy gis borom xam-xam kon loolu dañ leen ciy ñaanal yàlla waaw. kon allahuma salli ala seydina muhammadi alfaatihi lima uxlika wal xaatimi lima sabax annaasiri alxaq bilxaq walhadi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaq qadrihi miqdaari azim subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin alors mi ngi noonu ah gis ngeen ça a été un plaisir de vous servir Djily moom ah, dégg nga ma naan Djily sama frère bi Fallou Mbaye moo nekkoon ci caméra bi gis nga man parce que dama affaire yi moom xaw nekkoon si présentation bi tey ñu seet si woon ki nga xamante ni mooy Kounkandé doon waxtaale li nga xamante ni moom mooy actualité euh, di leen jox dig daje tey mu def grand boubou bu baax macha allah waaw lii nag moo jox dama ragal mu mat mu ngande si ko. <laughs> ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info.